قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع aw yàlla moo ñu ko joxoon rek suñu borom te jël na ko am nañu yaakaar ci moom ab taw taw xeer ab tawxiit bu baax si moom ne suñu moom ku ndeyam gërëm la avant man sax may wax yaayam ku ko gërëm la ak i boppam ak waa koñ bi wax ñëpp darajey maam Seera Fall man mi da gërëm naa ko parce que sëyal na ma sëy bu dafa dama dañuy ànd dul dëggu ba dara dul dara lañu ànd mu bëgg ma ma bëgg ko te yàlla tax lii rek moo ñu mënoon tàggale ñu koy ñaan suñu borom nag yàlla na ko yàlla atte si yërmandem kàttu yonent bi salaa salaam asaabam ya avant ko. waaw dama boobu nag dafa xamoon dafa demoon tukki. Mhm. ba mu ñëwee si diggante bi ñu dem déggante waaw jot ñu woon dégg gisee. Mhm. waaw yàlla dogal na loolu. Mhm. tey di laa ko mujjeewaat gis tey tey. dem ba ma ko waxee fii laa fanaan si. daayira laa jógee rek ñu wax ma ko ma daal di ñëw fii ànd ak sama mbokk taalibe bi. xam na ngor lañ jógee daal di ñëw fi lañ fanaan. waaw incha allah xam naa beneen rek bu neex suñu borom. ok yan kàddu nga mujjee waxante ak moom waaw daba xanaa kay moom kaddu yi ma mujjee wax ak moom soxna si mooy maa fay dama fi ñëw fekk ma ko fi ma ñëw fii si dakam bi ñuy wax ajjatu moom moo nekk fii si place bi ba mu fi ñëwee mu ne ma daba dafa génn si laa daal di nekkoon man naa fi ñëwaat nag boobu ba tey nag waaw gisee wu ñëw waaw ñu ngi ñaan daal suñu borom ñu at ko si yéen ma dem kàttu yéen bi salaa salaam jërë ngeen jëf. ay ñu ngi taxaw ki nga xam ne moom moo di Serigne siis ku ko xam xam ko ak Daba Boy waaye ku ko xam tamit xam ne bokk na ci ñu gënoon jege Daba Boy Serigne Ciss nuyu nañ la. Euh, ñoo ngi lay fay bu baax soxna si. Mm-hmm. Euh, di leen massawu yéen it mm-hmm. ci lii nga xam ne ñoo ko bokk. Mm-hmm. te naan xaaloo inaa lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma ñàkk koo xam ne ku ku sori woon ci man la di suma jigéen di suma xarit di jàmbaar yàlla defit mu wàcc liggéey. kon man euh, gëm naa ne ku ne ñàkk na waaye man maa ñàkk ndax koo xam ne ni meloon ci man ci ci ci ci ak ak ak jàppam ci man ci léppam daal bu bu yàggul rek laa taxaw fi may ko fi jëkkër même pas même pas sept mois euh, huit mois ñu ne la euh, wàcc na liggéey xam nga ne loolu triste na métti na waaw loolu daal mooy mbir mi soxna si nu ngeen yëgee xibaar bi daal ci diir bu gàtt feebar daane ko ñetti fan borom bi def mu wuyu ji boromam ñu gis ne bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege ban message nga mujjee waxtaan ak ma wala bu dee dénk na la lan la dénk. waaw mujjee dénk yi du lenn xam nga daba moom nit la woon koo xam ne saa soo waxee mu ne sëñ Cissé mu ne naa mu ne def lu ñaaw amul njëriñ adduna lu mën a xewit fii lañ koy ba lu mën a xewit dañuy dem ba ko fi yàqante beeg liggéeyante bi dara jaru ko sëñ Cissé dee day ñëw ba ci fan yu mujj yi daba daba daba daba di ma wax yéen yoo xam ne daal dafa mel ni yëgoon na lii ci yaramam moom moom moom lii lu lu mu la ndax ni mu doon communiquer man dem na ba communication ba ci émission bi mu mujj a def euh, scientifique kerek bi mu ne bismillah baatub dee la njëkk a tudd ne dee ay dëgg kon loolu moo tax daal ñun ñunu ñàkk nanu waaye daal daba dee xam gii dama ne xeñoon na ko ndax man li mu doon waxtaan ak man ñaari bu ko waxaan ma ne ko daba man bëgguma kuy waxtaanee dee coupel sa téléphone man yooyu bëgguma ko nii daal la def ba euh, euh, ba tàggenu ko soxna si tey nga wéet naa trop wéet naa trop wéet naa trop wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla rek fa la ñu jëmee ko ca Touba yàlla na fa dajeek soppeem ba sëñ fàllu yàlla na fa do dajeek soppeem ba Cheikh Ibra euh, di ko di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko aljanna ci dara ju bi barki sëriñ Babacar Si. ok sëñ Cissé bi. ñu ngi ànd ak Daba Boy ñu yar ko mu bëgg Daba lii rek moo doon tàkkale te barki yonent bi bu doon tey jii macha allah tey jii ah tey rek la ñu Daba def lañu ñu naqari musuñu def lañu ñu naqari barki démb rek maa ngi déggante dégganteeg moom téléphone ah di wax rek yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. yan kàddu la la mujjee dénk. kàddu la ma mujjee dénk ñoom moom. dafa mel ni suñuy wax day mel ni damay wax ak koo xam ne sama xarit la wala sama doom la ñun yooyu la ñuy waxante di waxante loo xamante ni ñun mën daal Daba Boye complicité bi mu am te du man rek ak samay rak ak samay mag tey jii sama rakk nekk fi mu ngi ah, Italie ñaar ñoom ñëpp ngi Italie kenn ki ñëwagul mu ngi si yoon bi sama mag mais ku ci nekk rek mën naa wax ci Daba booy loo xamante ni man sax mënuma duma ko wax ku ci nekk ci ñoom rek mën nga wax ci Daba Boye loo xam ne man mënuma ko sax tey nag sama xol tey rek laa la sama xol jeex si Daba booy sama mag dafa nekk États-Unis kenn nelawul sama mag bi nga xamante ne ni moo doon njëkkali di suñu taaw suñu taaw bu baax bi démb ba léegi nelawul te dafa feebar dafa jooy a jooy ba dama ko ragal a jël téléphone ndax affection bi mu amoon ci Daba booy yéene bi mu amoon ci Daba Boye yéene bi ñu amoon ci Daba Boye du lii yéene bi ñu amoon ci Daba Boye du lii ñun suñu famille yéene bi ñu am ci Daba booy na dafa bokk ci ñun damay wax suñ turu famille bi yëpp Daba Boye tey rek la ñu def luñu naqari mosuñu koo def barki yeneen bi daba àdduna bi yëpp la daba senegal la mën naa ni man ak moom ñoo mujjee def émission ci tele bi ñu koy ñaanal sama xel dal na bu baax a baax a baax ci moom parce que nitu kase la nit ku baax la waaw di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko lool fi mu jógee yàlla suñu borom xaare ko ci àjjana yi gën a kawe ndax xol bu rafet la yor tey lan nga ko ko mujj wallaay tiis rek waaw mais nag yàlla suñu borom kenn du xëccoog moom te biir na ma ni ñun itam fii rek la ñuy mujj te taxawaay bi rafet na am nañ ci moom yaakaar di ñaan yàlla suñu borom xaare ko ci àjjana yi gën a kawe rek metti na quoi jërëjëf jërëjëf merci. lay jaale li ñu bokk. nanoon nga ci Daba Boy. Daba Boy sama cousine la sama cousine la. cousine la bi nga yëgee xibaar bi naka la la def. man ba tey dama kaa gëmul. ba tey fu mu ne nii affaire yi ay liboon liboon la nekk ci man parce que daba xadijatu wax na lépp daba daba ñëpp la daba daba Sénégal la mën naa wax ci àddina bu bëggee neem man lay oo cousine ki nee ne la mën na ma seede xaritam bale toog xaritu benn bakkanam dina ko lekk feneen de waaye tant que man réagir ma cousine sa neem rek lay lekk du ma lekk lekk neemu keneen dama ñun ñëpp a ko ñàkk na ko yàlla xare ay jana mënuma wax sax parce que affaire bi ba tey daf maa choqué billaay man Suzanne affaire bi daf ma choqué ndax ñun ñàkk nañ daal te yéen tamit ñàkk ngeen ndax daba daba ñëpp la mais yal na ko yàlla xare àjjana rek te bàyyi ñu fi ba si kanam kanam ñu ñu koy ñaanal parce que lii day arrivé ñëpp déegi day arrivé ñëpp kon nañ gëm yàlla te xam na yàlla ñu ko joxoon moo ko jël xam na ñun ñëpp tam dañuy dem metti na torop soxna Suzanne yan kàddu nga mujjee weccoog ki nga xamante ne moom moo di sa cousine bii di ajaratu Daba Boye ah dëgg la c'est sama téléphone avant muy yàqu dañ daan déggoo mu créé groupe bu am solo ki ne toog kële xaritu benn bakkenam la mu dugal ma ci mu ne ma cousine du dugg lenn te duma la ci dugal ndax yow yaay sama lépp ay anniversaire am ak yëpp man lay jiital man mënuma wax daal mais soxna Daba bu mu jën déggante ak moom mooy bu mu voyagé gabo mu def ay sept ma ne ko tey cousine lan nga namm mu naa ma di topp say tànk rek mu ne ko yàlla sàmm mais daba daal a ngoogu rek dafa yéeme daal mooy li xajjatu wax daal kenn xamu ko yàllaa ko xam ak sëñ Fallou te yàlla na ko sëñ Fallou teeru loolu rek lu may wax metti na trop waaye nañ telloo suñu xel si yàlla rek ñi ngi tudd feebar ni dafa am tawat goo xamante ni dafa nekkoon ci moom ndax tawat gu yàgg la wala ban tawat la moom bu amee lu ko naxari sax doo ko xam ndax yu bari da koy camoufler ndax daba foo ko gis mu ngi reetaan bu amee lu ko metti doo ko xam ndax daba mu ngi kaf daba mu ngi foo mu ngi ree mais man lii man daf ma bett wallahi azim daf ma bett man mi bokk ak moom di cousine am bett na ma torop te moom it fa mu tëdd na la ku ko fëgg na ka yaa ngi dem nga nii existé su ci àddina du ko gëm danaan déedéet waaye nañ nangu li yàlla dogal rek kenn mënu ci dara merci beaucoup بيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع